je pense que li nga xamante ne moom moo ñu regroupé woon tey mooy installation commission bi le ministre installé na commission bi commission bi 8 membres la li nga xamante ne moom la commission bi war a def léegi mooy jublu ci liggéey bi jublu ci liggéey bi moom mooy lan am règlement intérieur bu nga xamante ne war nañ ko adopté règlement intérieur boobu moom moo ñu wax nan la ñu war je pense que dans un avenir très proche dinañ regrouper, wu le règlement intérieur bi bi nga xamante ne dinañu permettre ñu commencer liggéey commission bi li nga xamante moom lañ ko jox comme attribution code de la presse moom moo ko définir dañ dañuy attribuer euh, carte nationale de presse ñi nga xamante dañu dañoo ci école de formation ñi nga xamante ne génnewuñ ci école de formation ñu valider seen expérience avant ñu leen di jox carte nationale de presse donc bo gisee dafa am benn code bu nga xamante ne moom moo fi nekkoon code bobu dafa waxoon dafa définiroon kan moy journaliste journaliste bi dañ ne won moy ki nga xamante dafa génn ci école de formation et qui tire l'essentiel de ses revenus dans ses fonctions de journaliste bon article bobu posewul won problème mais dafa amone benen alinéa moy paragraphe 2 bi bu nga xamante ne mo done poser problème parce que dañ ne woon même école de formation vous nga nekk journaliste qui fekkee une nga ci rédaction régulière amul woon benn critère de formation amul woon également commission de validation mais li nga xamante code de la il faut que nga ayez une école de formation pour avoir une carte nationale de presse avez une école de formation il faut nga une licence avec deux ans de pratique journalistique pour venir ci commission bi pour que ñu mën a valider expérience boobu su fekkee ni ñaar yëpp mataloo ko nga am fukki at pratique journalistique pour mën a ñëw ci commission boobu pour que ñu mën valider expérience boobu je pense que commission bi loolu mooy li nga xamante mooy liggéey bi ñu ko sant te loolu mooy li nga xamante également moom lañ fas yéene def tey jii tey jii tey ak code bu bees bi képp ku nga xamante ne carte bi mënuñu la considérer comme ku ko yorul mënuñu la considérer comme journaliste donc sañ-sañ bi nga xamante ne ki ko yor moom la moom la war def mooy respecter li nga xamante ne moom règle yi nga xamante ne moom bind parce que boo xoolee code bi non seulement dañ né da nga wara am carte nationale bi mais dañ la wax ne journaliste lan moy liggéeyam parce que amna journaliste bi nga xam non la wara a comporté woo am journaliste bi nga xam lool moy mooy parce que liggéeyam collecte la vérification ak diffusion information mais amna ben comportement bu nga xamante journaliste warna ko am warna respecter un certain nombre de fondamentaux warna def li nga xamante mom moy permettre liggéeyam mu def ko convenablement warul far ba mu fess par exemple di wane di wane fessam warul def lu nga xamante ne fay boddi xet warul def lu nga xamante quand même yone da koy journaliste bu ko de bu def également amna na ay sanctions yo nga je pense que code bi prévoir nako donc journaliste dal dafa wara def li nga xamantene mom moom la ko loi bi demander as pour que mu mun def convenablement liggéeyam.